Eh, dalen ak jamm mbokki internet yi safo di seetaan bus MTV Senegal di len jajeufal bu baax ci top bi ngeen di top sen bi way di abonné bus cloche de notification bi ndax video bu nu ngeen dal di si jot mo ngi don video tay bi dañi ñew jangat jëm si journaliste bi di pap alanya jamono bi mu nek directeur general bu RTS 1 S. ciow li nga xamne nak jibna bañu ko sampé fële sa RTS mu daal di remplacer ki nga xam ne moo di Racine Talla ñuy wax que ne nag est-ce que RTS dafay continuer doon joob joob bi nga xam ne moom la doon joobe maanaam topp nguur gi topp ki nga xam ne nag moo di président de la République di Sénégal est-ce que loolu mooy continuer di wéy ba léegi lu ne mel nag dina si dikk ak ay jàngat yu ama am solo jëm si moom mii nga xam ne moo di directeur bu RTS di Pape Alé Niang programme mu RTS ana naka lay tëddee lenn si patriotes yi jàngat yu ama am solo yi nga xam ne daat nañ ko si amal si mbir mu ni mel. mënuñoo nekk deux cent quatre-vingts partis politiques. Pape bëgg RTS couvrir deux cent partis politiques yëpp mu couvrir loolu mënta nekk mënta nekk. comme on est dans une laïcité am na yoo xam ni mën nañ ko couvrir bu baaj catholique yi ayee mu couvrir leen. ñun jullit yi bu ñu ayee mu couvrir leen waaye nag mënoo ne sama maam damay def sama gàmmu maam sama dafa faatu dama koy defal ziar ñu couvrir loolu déedéet dañuy xool fa nit ñi ëppee ñu couvrir loolu am na yoo xam ni d'accord nañ ñi bu jotee da koy couvrir muy ay gàmmu ay màggal ay tëbaski ay korité ay pëpangin ay ziaru ñaseen yeeg gàmmu tiwaaw nag yooyu mën nañ ko couvrir parce que sénégalais yu bëri bokk na ci waaye ku jóg toog rek mël fëwu rek mais sama maam lay defal ñaan rek dañ ko war a couvrir déedéet loolu duñ ko def koo xam ne yow mosoo dem élection mosoo dem élection kooku kenn bu la couvrir parti day dem élection wane dooleem te ñi fi dem élection yëpp gis nañ li ñu am zéro virgule un un pour cent zéro virgule un kooku amul nit doo ko couvrir

APR am fa temps d'antenne yeneen parti yi partie qui ñu rembourser leen sen caution ñu am fa d'antenne c'est tout à fait normal Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la République mu am fa d'antenne état bi am fa temps d'antenne mu nekkal fi télévision pour que le peuple bi la fi nekkal bu peuple bi di am ay activités la jeunesse am ay activités mu woné ko c'est tout à fait normal kon askan bi la fi nekkal li neex askan bi la fi nekkal RTS waaye duñ ko jël rek sëf ko lépp ne RTS daal léegi daal Pastef moo ko moom yeneen parti duñ fa wax keneen du fa wax opposant du fa wax déedéet RTS nañuy invité ay opposant dam fa wax amul problème c'est tout à fait normal parce que RTS la ñuy dundee ci peuple bi lay subvention peuple bi si lañuy ñuy tibb jox RTS yeneen télé privé yi ñoom ñoo moom télé ils sont libres le soleil journal le soleil pareil ñun ñoo ko ngay couvrir li nga xam ni la sénégalais yi jàpp ni war ko couvrir mu ci ñun wax dañu koy def.

liñ leen dikk yëpp mën nañ ko def te dinañ ko def te il faut du temps loolu dama bëgg ñu bàyyi ko xel am réew boo ko jëlee mun en lambeau nga jël réew mi fépp ay metti fépp ay jaxasoo ñu caxat caxatee réew mi neewoon naa leen bis bu ñu jëlee réew mi di ngeen gis ay càcc yoo xam ne du ngeen ko mës fooge ay nit yoo xam ne dem xëy suba liggéey ji ñu leen di daggal salaire te ñu nekk ci mi duñu amerte suba ngoon di wax yooyu yëpp dina feeñ ak yeneen ak yeneen ay Mansour Faye ak ñaareel mooy ministre bi nga xam ni moo dàq sàcc ba Sénégal sooba ba léegi am ministre mel Mansour fay jarul muy yuuxu naan parce que nag mënuma jàpp ak ainsi de suite ainsi de suite mbir yi dina leer nañ kër yi ngeen tabax këru fonction yi ngeen jël moomal ka seen bopp yooyu yëpp dina leer ba ci Bougazelli mii tam te këram tëdd këram dinañ ko woo laaj ko duñu bàyyi dara mais il faut du temps il faut donner le temps au temps mënuñoo xëy suba def lépp yoruñu baguette magique ay nit lañu dara xeyul soti alquran ji wala diine ji bala ñu ci jot dafa yag yonent bi def na 23 ans pour xamal wa màkk kan moy yalla tawhid kesse kese rasulillahi peesuli def na 23 ans di jiyaat di conscientiser nit ñi kan moy yalla 23 ans def nako ci giiram kon ñun mënu ñoo jot réew mi même pas 3 mois ngeen bëgg lepp soti lepp jaar yoon

du ñu amati subvention boo xam ne état moo leen koy jox gis ngeen ay imam génn naan jox leen suñu suukaru koor kan moo ma a xalaat ni ay imam di leen di leen leen jox suukaru koor Sénégal kenn mësu ko xalaat bu ñu demee nag ba xam ne nag loolu mëntul sotti ñu tëb di yuuxu te xam na ni jeex na maa ngi gis le gars de Jamra la ce pauvre type là di génn di wax mais Jamra kan mooy jambra Jamra ka ka ko ka monte faatu yal na yàlla yërëm ko xare ka àjjana mais kooku ay njuuj njàkk la ko après war di dugaloo woon kaso ay médicaments yu ñu joxoon don mu jël ko di ko jaay bu ñu dugal ko ci kaso kii fi nekk tey jii mënoo yar sa doom sax bu bëgg joxe mu leçon de morale sa doom sax mënoo ko yar teg ko ci morale ba pare nga bëgg a joxe leçon de morale parce que xam na ni lii rek la mën a def pour nit ñi dégg ko. xam nañu jeexal na am na ñoo xam ne il faut leen ñuy yuuxu di yëngu parce que xam nañu dañuy wéqu xam nañ ñi jeexal nañu xam nañu subvention duñ ko amati privilège ñu amoon xam nañ ñi jeex na pour bañ ñu fàtte leen nag moo tax ñuy tëb di dal di yuuxu di wax la ñu waxul woon si Macky Sall waxuñu ko woon si Abdoulaye de ñu bëgg ko wax si ñun mooy ñoom xam nañ ñi jeexal nañu mais alfond nag ñu wut benn buntu benn porox ndoll pour nit ñi bañ leen a fàtte moo tax ñuy tëb di dal ñooñu c'est un revers de main du ma sax leen tontu